Euh, di tàmbali ci nuyoo bi euh, le bureau Parcelles Assainies c'est-à-dire Djibril Sané mooy responsable communication di nuyu tamit euh, Diédhiou Idrissa Diédhiou moom mooy adjoint coordinateur di nuy tamit le secrétaire exécutif du parti Diatta di nuyu tamit notable yi fi toog ñu fi teew di nuyu tamit les le parrain et la marraine di leen jaaca jaajëfal bu baax di nuyu tamit yéen ñëpp fi teew di leen jaajëfal ñu ngi toog parce que tamit euh, c'est pas facile nga woote ñëpp teew ñu leen ci jaajëfal bu baax vraiment nuyu tamit ñi ma àndal waa unité cinq ñuy toog te tamit di wax rek ne maman tudd Mati Gueye responsable vingt cinq donc euh, bu ñuy wax tey euh, ci vision Ousmane Sonko dañuy sawar topp wax ci parce que ñun on est des jeunes. on n'a jamais fait de politique mais dañoo toog ba ci yàgg dañoo révolté wu tax ñu révolté wu mooy lan parce que dañ ne pour quoi pas ñu jug xeex pour suñu réew parce que ñun tey jeunesse bi ñu ñoo mën a tey taxaw ne gis nañ loo xamante ni c'est pas normal mais bu fekkee dañoo toog suñu kër ne duñu def politique kon yaakaar naa ne na am ay pays ay ay nit ñoo xamante ni ce sont des étrangers nit ñoo xamante ni gëmuñu seen réew ñoo ñuy diriger te bu ñuy diriger. booy xool politique bu ñuy def rafetul Sénégal politique bu ñuy def c'est pas patriotique leur politique c'est quoi dañuy jël suñu ressources yëpp jaay ko à l'étranger leur politique c'est quoi au lieu par exemple ñu jël jeunesse bi jox leen ay liggéey pour ñu liggéey duñ ko def dañuy préférer jël seen doom yi yóbbu leen ko à l'étranger yóbbu seen doom à l'étranger ñëwaat jiite ñu dañuy préférer def lan jël suñu xaalis pasar pasaree ko. la mooy pasar pasaree mooy jël xaalis bi un deux trois ñu ñëw ñu leen dañ la jox financement financement une petite somme jox ko des fois suñu maman yi wala des fois ñu woo ay groupe d'étudiants jox leen ko te alors que xaalis boobu ñu ñuy jox suñu xaalis la pourquoi pas xaalis boobu ñu xaalis boobu ñu yor ñu jël ko def ko ci l'agriculture wala ñu def ko par exemple dans la pêche boo la xool tey Sénégal il y a pour cent des terres yoo xamante ni kenn cultiver wu ko loolu je pense que moo ni ko exploité bu boobaa kon insuffisance ah, insuffisance alimentaire kenn ko dégg tey jii bay xool la majeure partie tey ji lu ñuy lekk muy ceeb muy diwlin muy légume lépp dañ koy importé te là c'est pas normal man loolu tax mën a jug damay def politique te Ousmane Sonko lu tax maa wax dama ko defal politique mooy il un homme engagé un homme bu juste pourquoi il est juste parce que il était un inspecteur des impôts te fu mu nekkoon mosu fa lekk benn xaalis te dañuy xool ne presque dans toutes les entreprises tey Sénégal koo jox benn responsabilité booy xool dina tabax kër dina jënd oto booy xool dina def xaas bi dina ko jël dina ko yóbbu foo xamante ni luñ ko responsabilité boobu ñu ko jox du ko assumé à 100 cent tey Ousmane Sonko booy koy xool fu mu nekk def na fa lu mat plusieurs années mosu fa lekk wala mosu fa luubal benn xaalis man loolu tax ma ne tey damay jug jàppale Ousmane Sonko parce que gis nañ ci moom dëggu. gis nañ ci moom engagement parce que booy xool le PASTEF comme ça signifie le parti du du du patriote du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité parce que booy xool travail liggéey je pense que àdduna nit dafa war a liggéey jaamu yàlla te Ousmane boo soo ko boo koy xool ñaar yooyu am na ci moom jaamu yàlla bi mooy mustaliwubal dara dafa gëm deuxièmement tamit il est un homme boo xamante ni dafa gëm éthique parce que éthique mooy lan luñ la jox nga mun ko jaarale yoon. Ousmane Sonko ci loolu lay dox parce que booy xool tamit euh, dans son livre qui appelle solution il a élaboré deux éléments essentiels mooy lan mooy économie ak sociale parce que dañu tey jii pour lan ñun ñu am ay accords accords yi bu ñu ko jëlee signé ko l'avantage ça revient aux pays étrangers pour lan loolu c'est pas normal tey jii Sénégal booy xool prix yu fi nekk yëpp que soit le Maroc que soit Rwanda cinquante ci ginnaaw pays yooyu presque ñun ñoo leen rawoon il y a des personnes qui sont qui sont qui sont qui des personnes yoo xamante ni dañoo jàng Sénégal université bu fi nekk presque c' était le l' université le meilleur en Afrique mais pourquoi pas le Sénégal ne s'est pas développé que je pense que ce sont les personnes qui ont dirigé le Sénégal plus de 60 ans qui ont failli leur devoir comme ñooñu dañ leen fi war a jëlee parce que tey nit ñi ku nekk dafa war a gëm sa bopp ñun nañ de politique bu set politique bu jaar yoon te Ousmane Sonko booy xool. dane comme ça accords yi nga xamante ne dañu ko war a signer on va faire tout par exemple que les accords soit profitables au Sénégalais loolu lay loolu lay prôné Ousmane Sonko lu mu waxaat nee tamit bis bu fekkee ne nekk na président le Sénégal n'aura pas d'insuffisance alimentaire mais dina def tout ba exploitation bi nga xamante ne war nañ ko def suñu terres yi on le faire deuxièmement tamit au niveau social wax na fa lu am solo nee na suñu maman yi. yi nga xamante ni dañuy liggéey les couches bi c'est-à-dire les femmes ménagères boo demee tamit hôpital tey jii nga war a faju amoo xaalis doo dugg loolu c'est pas normal Ousmane Sonko nee bu faloo loolu dina ci taxaw bu baax te loolu mën na nekk lu tax moo nekk mooy lan le budget de l'État bu fekkee ne yàquñu ko le budget de l'État tey jii bu fekkoon ne mu ngi mu ngi koy ñu ngi koy partagé partagé bu jaar yoon moi je pense que boobaa Sénégal nañ ko mën a liggéey bu baax kon ba lu ma ban appel rek laa leen di wax bu bañ a guddal moo nañ jàppale Ousmane Sonko parce que am nañ fii trois présidents yoo xamante ni passé na mais bu fekkee ne Ousmane ko nekk nañ nekk président moi je pense que Sénégal nañ gisaa benn vision te Sénégal dina jëm ci kanam incha allah kon ba maa ngi di jaajëfal bu baax jaajëf. bon côté boobu man sama apport lu may indi rek juste que ñu mën a soit teg. ay euh, euh, bu dul projet aussi di ay xalaat xool naka nañ leen mën a jàppale pour intégrer leen ñi nga xamante ni liggéeyuñu aussi naka lañ leen mënee defalee benn formation ba ñu mun a intégrer société bi wala ba ñu mun a am benn en fait profession ba nga xam ne dinañ leen mën a jàppale parce que je pense que tant que loolu aussi lijjantiwuñ ko parti jeunesse bi mënuñu ko lijjanti. suñu par rapport à Pastef parce que tamit tey vision Sénégal tey je pense que Ousmane Sonko bind na livre El Hadj bind na la benn livre bu naan solution dañu bëggoon xam rek ci solution Ousmane Sonko ban vision la fay la fay la fay prôné. benn fu mu toll nii benn solution rek. waaw ah, TV di rafetlu vraiment si teewaay bi nii. waaw si question yi euh, Mati Gueye bu ma posé nii vraiment c'est une question pertinente. di leen wax ni euh, solution ça comporte treize chapitres parmi ces treize chapitres vraiment c'est je peux dire que il a relacé relaté en quelque sorte la situation du Sénégal surtout dans le domaine économique et social euh, et euh, elle a même affirmé ça lorsqu'on l'avait donné la parole donc Ousmane Sonko concernant vraiment wax lu bëri parce que tey soo xoolee suñu économie vraiment c'est une économie extravertie boo xam ne dépendant de l' extérieur te ñun réewum balaa mu mën a développé il faut que mu am développé développé kii économie boo xamante ne une économie euh, inclusive tu vois donc Ousmane Sonko lool loolu moo ko tax mu ne balaa mi euh, génnee programme moom euh, foog mu génnee andi génnee solution kii livre bu ne solution moo ne vision Sénégal yi yëpp lan moo ko tax mu dugg si politique bi nii Donc euh, voilà. ce côté social bi aussi oui, il a oui. il a beaucoup parlé il a euh, beaucoup parlé dans toutes les couches vraiment il n'a pas laissé aucune couche couche yëpp la laal euh, donc pour l'instant loolu laa mën a tontu pour mu am lu mu ci sànni tamit kàddu tuuti ok merci El vraiment li nga li nga li nga li nga développé neex naa dégg parce que tamit yaa ngi wax par exemple euh, ci livre bi yaa ngi wax nga ci vision bi euh, au niveau du livre mais tamit euh, wax nga exactement comment les les chapitres du livre c'est très très important donc ñu la jaajëfal bu baax tamit xaar ñu ñëw ci Bakary Bakary ñun dañoo gis ne par exemple Ousmane Sonko dafa ñëw def politique bu bees bu bees c'est-à-dire que une politique autrement te politique bi booy xool jeunesse bi euh, je pense que ju bëri dañ ko ciy topp waaw man damay laaj exactement est-ce que euh, se Sonko euh, moom par rapport au je comment à la jeunesse est-ce que il a donné par exemple des solutions dans le livre par rapport à la jeunesse. bëgg naa par exemple ngeen mën ñu ci wax daal ñu mën comprendre parce que tamit jeunesse c'est le c'est pôle par exemple du ah, Sénégal parce que ñu euh, Sénégal le de pour cent est composé de jeunesse donc Ousmane Sonko ban solution la prévoir pour jeunesse Sénégal ok ok maa leen di nuyu euh, waa suñu TV comme suñu sœur bi Mathieu ko waxee dafa doon ki nga xam Euh, mu mel ne moom su moom bi yëpp si jeunesse bi la surtout xale ñi nga xam ne ñooy door a juddoo parce que boo xoolee tey Sénégal tey balaa ñu bu ay deux wala ñi nga xam ne te ñu ñoo juddoo te ñu nee fay impôt wala ñu nee fay taxe yi nga xam ne état Sénégal dafa dugal ñu parce que moom ne ne tey Sénégal boo xoolee tey Dakar tey tey Dakar dafa ay ay jeunes yi gën a bëri foofu ay si kii lañ si yenn réseau lañ jógee dafa ne balaa ñun Sénégal ñuy concentré wu fii Dakar dañuy xool chaque réseau bi nga xam ne lépp yi nga xam ne gars yi am nañ fa comme ressource comme ressource naturelle la créé fa industrie yi nga xam ne jeunes yi dañu mën a liggéey balaa ñuy déplacé ñoo fii Dakar mais ñu toog seen réseau yi nga xam ne dañu fee toog liggéey parce ñun sëñ boo xoolee Sénégal te ñun jeunes yi ñoo gën a sonn parce que comme suñu président mi ko waxee Euh, yokku na âge retraité yi nga xam ne na xam ne amuñu liggéey alors que bëgg nañu liggéey mais loolu pour loolu mu am solution Sonko nee na moom daal bu mu ñëwee tey ay ay ay yi nga xam ne chaque région wala même boo deful chaque région mais nga xool par exemple si benn pôle bi nga par exemple boo xoolee par exemple tey euh, boo xool boo demee ba par exemple Ziguinchor euh, ñu koy waxee Fatick ak def wenn pôle nga xam ne gars yi yeneen yëpp ay Kaolack yeneen yëpp dinañ boo koy boo fa créé benn boo créé benn industrie yi nga xam ne yeneen usines yi nga xam ne dañ jógee Bignona jógee si yeneen département comme aussi su jógee Kolda ñoo liggéey fa mais loolu ñu ko defee au moins seen jeunes yi dañ gis seen bopp te jeunes ba xoo dëggal ñi nga xam ne ay jeunes lañ mosuñu def politique mais boo ñu def si politique parce que dafa doon ki nga xam ne ok dafa ñu proposé ay solutions yi nga xam ne ñun ñu arrangé pour Sénégal loolu taxul ñu engagé si politique ok merci merci Bakary donc pour dire rek ne euh, euh, euh, pour dire à résumé léegi lan ngeen lan nga xalaat par rapport aux élections parce que ñu jëm ci élections yi te gis nañu ne pouvoir bu fi nekk daa fait par exemple sept ans au Sénégal mais est-ce que quelle quelle prérogative ngeen mën a jël Pastef a jël par exemple par rapport par rapport aux élections mais aussi yaakaar na gagné élection yi incha allah waaw vraiment di rafetlu question bi Mati Dieye waaw may waat encore en arrière parce que dama fàtte woon di présenté wu sama bopp maay tudd El Hadj Aziz Diame maay responsable cellule unité 24 donc vraiment c'est une question pertinente au sens où tey soo dëggee nit ki gagné na parce que parce que parti bi moo organisé wu tu vois donc organisation parti bi fan lay ñëwee si à travers ses militants waaw vous avez vous avez même je profite l'occasion pour dire que vous avez même rédigé un article concernant concernant la stratégie comment Pastef va faire pour afin que afin qu'il puisse euh, gagner les élections de se dire que si nous avons cent euh, cent mille euh, patriotes volontaires mhm. tu vois et dans chaque parmi ces 100 là chacun euh, mobilise 10 euh, votants parmi dans sa famille je pense que on aura 1 million de parrain, euh, donc parmi ces 1 million de votants là donc c'est sûr que sur certain on peut amener le, le, au, second tour tu vois si, on amène le Macky au second tour c'est fort probable que on, gagne les élections donc je peux dire que c'est une détermination et un engagement ferme de tout un chacun de les patriotes donc c'est un combat c'est un combat président doit, doit vraiment euh, et montrer leur détermination afin que nous puissions, au soir du février, que nous euh, puissions amener euh, notre cher président Ousmane Sonko à la magistrature suprême du 24 février. C'est ça que j'ai à répondre. Quoi. Merci. Donc, euh, merci Elage. Donc, pour dire seulement à votre, contribution, à votre débat, mais aussi par rapport à l'ingénieur développé Ousmane Sonko, je pense que man lol n'est pas parce que tey jii je dis que Ousmane Sonko jeune la jeune boo xamante ne il est très engagé c'est un patriote donc c'est à nous euh, la jeunesse du Sénégal ñu boo ko jàppale parce que moom taxaw na pour développer le Sénégal dans tous les côtés parce que bay xool tey jii wax na ci social bi yaa ngi koy wax wax na ci éducation wax na par exemple ci économie wax na ci industrie te tey wax na tamit euh, ne le train de vie de l'État est très cher Sénégal tey jii accords yi yoo xamante ni war na ko mën a. asalaamaaleykum war na ko mën a signé au profit du Sénégal tamit wax na ko. donc mën je me dis que kon ni ngeen ko waxee euh, mooy Sénégal rek moom moo mën a jug. au 24 février jug pour xeex pour xeex par exemple lu muy xeex mooy Ousmane Sonko mën a nekk le président incha allah donc euh, yal na ci jàpp.